dal leen ak jàmm ci xibaar yéen kaay ñu daal di koy door ak le soleil national moom mi xëyee ki xam ne moo di Idrissa Seck moom ndaamal Kajoor jamono na ñoo ne topp nañu ci ginnaawam ngir fas yéene koo jàppale Sud Quotidien di ñu moo am ci diggante nga xam ne nag moo di ji nag moo di Malick Gakou mi jiite ab sëy la ñu xam ne tàkk nañu ko pour le meilleur et pour le pire maanaam seen diggante daal lenn rek moo leen leen ñor ñu daal di boole seen i doole ba jële fi ki nga xam ne moo fi nekk di njiitu réew mi président de la république Macky Sall ca jamono jojee nag l'observateur di ñu xamal ne moom njiitu réew mi démb kay dafa delloo njukkal ki nga nga xam ne moom la ko tuddee muy building administratif daan koy delloo li nga xam ne moo di Mamadou Dia ci biir yéen bi njiitu di ñu xamal ne jëf ji dañu koo delloo ki nga xam ne moo di Mamadou Dia mi nga xam la njiitu réew mi Macky Sall daal di yëkkati kaddu daal di xam ne jamono ji Sénégal mi yoon jël dina ko wàcc ba ci kanam Le Soleil yéenekaay ne ko kay taax ma yaan ji dëgg la ndax boobay taax am na lu toll ci fukki étage yoo xam ne am na ca waaye am na lu toll ci téeméeri pièces ak loo xam ne juróom-ñeenti salle de réunion yoo xam ne taax moom nga xam ne njiitu réew mi moom la tuddee Mamadou Dia El Hadji Malick Gakou borom grand parti ci yéenekaay bi duñu xamal ne bu ngeen gisee kay mën lëngoo ak ki xam ne nag moo di Idrissa Seck ndee ma ndaamal Kajoor moom kay jamono ji bari loo xam ne dañu ko nuróole ci jëf lenn moo ñu ñor muy danañu pour le meilleur ak pour le pire ngir jële fi ki nga xam ne moo di Macky Sall nga xam ne dafa nekk ci réew lu ko neex mu def ku tudd njiitu réew tudd ay élection te nag bu pire enquête yéen bi di enquête di ñu xamal ne démb xew ma daanaka moo rawoon dëjëb liir waaw bëriwuti nit waaye nag El Hadji Issa na démb programme di xam xam ne bu ñu ko joxee réew mi ministre yi dina ko wàññ ba ñu yem ci ñaar fukk yéen kaay bi di Les Échos di ñu xamal ne moom Issa Sall kay jamono ji sulliwaat na lépp loo xam ne jëm na ci assises nationales yi ndaxte foofee dina fa sukkandiku ngir doxal ab programme am tegu ci yoon nga xam ne moom la ñuy wax source a jongante njiitu réew yi nga xam ne a daal di xool naka la ñu koy organiser daal di xamal ne ki nga xam ne nag moo di Aly Ngouille Ndiaye am ndaje moo xam ne nag dañu ko doon amal ci sës ngir séddale ay gilet yoo xam ne dañu ko jagleeloon journaliste reporter yi ngir yi ndaje moomee daal dañu ko gàntal yéen kaay bi di source a daal di sampab

xam simpi guy gi nag séq ñoom waxtaan bu yaatu daal dinay wax ci digganteem ak Papa Sow waaye tamit daal di wax ci ki nga xam ne moo di Ama Baldé muy xam ne ne Ama Baldé daal daf ko ragal moo tax mu daal di nangoo mbaam ak digganteem ak Siteu